Assalamu alaikum, assalamu alaikum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di béggee sama gaay man la général Kayz Fof dama ñëw pour euh, passer un bon message euh, d'abord ñu féliciter ñëpp encourager révolutionnaire jeunes jeunesse Sénégal mention spéciale à vous liggéey bu am solo bi ngeen def résistance bi ngeen nek di Jambar bi ngeen nekk di wone jeunesse sénégalaise mention spéciale à vous on est en train de gagner le combat Amna lu bari. bëri bëri lo xamante xewna xew na ci goudi ci ay rencontre ci ay appel téléphonique ci ay réunion lo xamante mom moy déterminé. déterminer luy xew suba on est presque arrivé à la victoire Macky Sall dotul toogati Sénégal bu féké tay def nañu lu ñu def demb. bu fekkee suba def na luñ lu ñuy def tey nguur Macky Sall daanu na jeex na ñu ngi uti nuñ koy rawalee génnee ko Sénégal ñu ngi koy wax mu démissionné waaye ba léegi Macky Sall bañ naa démissionné mel na dina xool tey dina xool suba bu fekkee situation bi mel na nu mu mel démb xëy na mu démissionné xëy na mu exilé wu dem beneen dëkk waaye ñun loolu yëpp gënaluñu lu ñu gënal mooy ñu teg loxo Macky Sall parce que si nous frères des frères nekk nous rey dañ nous venger Moussafal... ta vie yo mi di ordre pour ñu ray sénégalais ça sa bakkan dañ ko soxla Moussa Antoine Diom sa bakkan dañ ko soxla dañu bëgg jël sen bakkan ku leen mëna faat dagan na parce que nous nekk di faat ay sénégalais yo jeunes lañ ñu pour que am donc sama gars combat bi actuellement nous ño dañoo togon sen kër di xaar toogaay amatul tay nous waccé millions de doomu vous étiez des millions dans tout le Sénégal tay millions yoy ci Dakar kessé lañ ko bëgg a avons million millions ñu gisee ko fenen ci région waye millions leen soxla gis à Dakar ñu don tok sen kër yépp millions de Sénégalais yu ont yépp le sama c'est maintenant ou jamais yéen ñi yépp yaakaaroon ni c'était impossible Nous daaneel nguuru Macky Sall gis ngeen que nguuru Macky Sall daanu na ba pare donc révolution sama gars yi génn leen nguuru Macky Sall daanu na nguuram c'est possible vous avez vu que c'était possible vous avez vu que le peuple bi mort. vous avez vu que sénégalais duñu ay yambar vous avez vu que sénégalais duñu ay quatre kese vous avez vu que sénégalais yi commencé bi ñu koy donc lan mo len té sen bir kër yi na ñëpp genn sen bir na ñëpp dem ci mbedd yi na ñëpp dooleel ñu nekk ci terrain bi nañ leen jàppale ci ndox nañ leen jàppale ci lekk diaspora bi loolu mën a envoyé ci xaalis yóndi leen ko waa seen waa koñ yi ñun suñu équipe yi dinañ leen gérer dinañ envoyé lépp lu ñu collecté comme xaalis ñu jox leen ko pour que ñu jàppale leen ci xeex bi nga xamante ni ñu ngi koy mener sur le terrain on l'assume entièrement amul dara lu luñ ciy nëbbatu ñun ñooy financer la révolution à travers diaspora bi participation bu mu ñuy jox pour ñu jàppalee ko suñu ay frères ak sœurs donc yi La révolution a sonné. Cette fois-ci, il n'y a pas de recul. Amoul marche en arrière. La victoire est tout proche. La victoire est très très proche. Il nous reste 48 heures pour que Macky Sall gagne au Sénégal. Nous au moment on a perdu beaucoup de frères depuis mars 2021 jusqu'à aujourd'hui. Frères Yoyo, ils attendent que Macky Sall nguuram daanu. Ken duñ ko fi Macky Sall en place ba chaque vie humaine perdue égale un pas vers le palais de la République. Pour chaque vie humaine perdue, un pas de plus vers le palais de la République. On a perdu beaucoup de nos frères hier. ay martyrs Nous nous joxe sen bakkan pour la liberté du Sénégal liberté Bobo. buñ ko amul buñ ko arraché wu rek dinañ trahir nos morts Xamna metti notre na torop ngeen di gis nous ray nos propre frères Xamna metti notre na torop ngeen di gis cruauté bi nga xamanteni ay nit ñu ngi koy doxal ci ci sama gars il y a une seule réponse face à tout cela mooy ñu réussir suñu combat bi buñ ko gagné rek venger nañ suñu ay frères Nous ñëpp dinañ leen teg loxo fu ñu monter nekk ci parce que actuellement ils sont en danger ñu ngi làqatu kenn ci ñoom sañul génn kenn dematul ci télé yi kenn dematul ci média yi seen waxkat yi ci réseaux sociaux yi tëj nañ seen gémmiñ amatul kenn ku leen di défendre ils sont seuls ku nekk mu ngi xalaat bopom. c'est ça la force du peuple sama gars donc on est presque arrivé à destination destination bi palais la yegg nañ centre ville il faut avancer léegi ci centre ville bi gagner ay position lepp luy sen ay immeuble ci centre ville bi la donc lepp lo leen mën tal ci banlieue dafa touti par rapport ak biens yu ñu am ci centre ville ils ont des immeubles amna ay yenen biens yo xamanteni ay points stratégiques yu ñu wara occuper jaa ngeen